daayiratul fadli buñ war ngay sant yàlla ñun lañ sigil kësaloodam si di baram aabe mooy tolloo ak la ushriku billahi Baye Niass mi ngi ñëw ci mille neuf cent te mille neuf cent mooy laa ushriku billahi duma bokkaale yàlla eh, ndaw lu sew bokkaale yàlla nañ dem ba waxtaan wi jeex fekkee xaj na fi 1900 mooy laa ushriku billahi man du bokkaale yàlla man ak Baye Niass nag du man ak kenn nit man ak lëw lépp la ku ànd ak yow rek dugg ci biir. soo seetee fay doom bi mais boo ko xisaabee mooy tuddoog mooy tolloo ak bushraakumul yawma annoncé mbégteem addina bi moo dëppoo ak année bi faydu bi di tàkk. bushrakumul yow année boobu ci la faydu bi wàcc xam nga kooku déjà ku yéeme la waaye weeru rajab bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Niass gane àddina moom la yonent bi waxoon ne rajab shahrullahi mu ne weeru rajab wi mooy weeru yàlla kon weeru yàlla ci la kay yóbbu ci yàlla ñëw moo tax yoon yonent bi waxoon ne bés bu njëkk ci rajab ku ko oor mu kaafaraal la ñetti at deuxième jour bi ku ko oor mu kaafaraal la ñaari at troisième jour bi ku ko oor mu kaafaraal la at kon ñetti fan yu njëkk ci rajab ku ko oor kaafara nga juróom benni at six ans yoo xam ne yaa ngi ko nekk ci naka sa du noonu soo ooree ñetti fan oor a ngëm ci weeru rajab wii yàlla faaral la lépp lu ñaaw loo ci defoon bi barakat hadha shahr shahr Mawlana Cheikh Ibrahim bés yi ci des bés boo ci or ñu faasal la weeru lëm ba lépp lu ñaawloo ca mos def ñu effacé la ko yonent bi dafa romb xabru mi ngi ànd ak ku ñuy wax suwebatu mu jooy jooy yu métti mu ne ko sang bi looy jooy mu ne ko ñi tëdd fii ñi leen di mbugal mbigal bu métti ñaan naa yàlla mu oyofalal leen ko oyofalal na leen ko waaye dara yóbbeewul leen seen mbugal mi lu dut dañoo mësta or benn bëccëg ci weeru rajab dañoo mësta dundal genn guddi ci weeru rajab mu ne ko sang bi bëccëgab koor ci weeru rajab ndekete kon mën na loolu mu ne ko kenn du or bëccëgab rajab te yàlla du la baal say bàkkaar suñ ko defoon rek duñ nekk ci mbugal mi nekk tey weeru rajab ku ci oor benn fan oor gu ànd ak ngëm la ñaan yàlla yàlla defal la ko ñàkk lekk ñàkk naan ba ngoon jot nag firiwut oor or dafay ànd ak xol bi koy def te du ànd ak les mesures d'accompagnement yëpp dañuy mat su ko defee mu door a ñëw soo ci ooree ñaari fan ñooñ asamaan ak ñooñ suuf yëpp mënuñoo wasf li la yàlla defal ci ay xéewal soo ooree ci weer wi ñetti fan bépp balaa boo defoon ci àddina effacel nañ la ko te soppil nañ la ko ay xéewal te it su la fekkee maradul jazm ak baras ak junuun yàlla dana la ko teggil ci barke boobu képp koo xam ne oor nga ci weer wi juróom-ñetti fan danañ la ubbil bunti aljanna yi tëjal la bunti safara yi yowmal qiyaama soo demee aljanna am na nahru bu ñuy wax nahru rajab képp ko or benn fan ci rajab dundal guddi ga ci naafila da nga naan ca sew ndey yooya te loola mooy nekkoon danga da nga dugg aljanna weer wu yem nii nag ku ci ñëw foog nga màgg kooku mooy ki nga tànn muy sa sëriñ nettali nañ ne yowmal qiyaama yàlla daf naan ay na rajabiyuuna ana ñooñ rajab ñi daan dundal rajab daal di jóg yàlla de màng leen leen ñoom ñëpp yóbbu aljanna moo tax ki ci ñëwoon c'est un homme parfait et complet Cheikh Ibrahima Niass mi nga tànn def ko muy sa su fekkee ne nit dafa bëgg taar soo ko tànnee ñàkkoo sëriñ su fekkee ne nit dafa bëgg njub soo ko tànnee ñàkkoo sëriñ su fekkee ne nit dafa bëgg xam soo ko tànnee ñàkkoo sëriñ su fekkee ne da bëgg tabe soo ko tànnee ñàkkoo sëriñ yépp nekk bokk dajee ci genn jëmm te lu tuuti la ci kim do kon ku ko tànn ñàkkoo sëriñ xam nga dama dégg léegi taala sa tu wax kéemaan yi nga yi nga jaar yépp Abdou Barhama ñaata at nga dund jeexal téere yépp fëli fii ba ndar wër fu nekk nga dem fa boobu liggéey bi ñu lay tuddal léegi liggéeyoo ko woon keroog ba nga àndee Cheikh Ibrahim te ànd gi wér keroog la jël këriñ bi def ko muy xal parce que këriñ soo ko yëkkatee def ko ci furno bu boy mu def ko xal keroog ba mu la defee xal nag nga dolam dox keroog nga commencé di liggéey la mu doon liggéey leneen lu ñëwati rek sa ànd ak Cheikh Ibrahima moo la ko may mais am na ko ànd ak Cheikh te abu ko parce que dëggu la manqué sa sëriñ moo waxoon ne wa in dahisha al aqtaabu yowman bi mashhadin ra'aw ni wan qaadu wa axlasu suñ demee ba xut bu yëpp gëlëm man maay doon boussole d'orientation bi nga xam ne ci man la ñuy jël repère pour dem boussole d'orientation waxut su nit ñi ordinaire yi jaxasooye de suñ demee ba nga xam ne xut yi kon ay aqtaab am nañ xut yi suñ demee ba jaxasoo boussole d'orientation bi nit ñi di régler seen bopp pour mën a tege ci yoon wi man lay doon dama juddoo ba léegi musuma dégg keneen wax ko ku dul bàyyi yëral tere yi duggal internet da gis sax ñoo xam ne lu nekk danañ ko sos waxal ko seen sëriñ mais billaahi soo lëjee doo fa gis mukk ku la andil ne wa in dahisha al aqtaabu yawman bi mashhadin raaw nii wan qaadu ilay wax la su doo gis ku ko wax doo gis itam ku ñemee taxaw ne la raaytu rasulallahi nassa bi anna nii safiran lahu fi l kainaati muxallasu doo gis ku ko wax yónnantu bi laa gis jahran du dama ko gis ci nelaw mais dama ko gis jahran mu ne may yow yaay sama ambassadeur ci jaami yàlla yi te tege ci yoon wiñ soxla yow rek yaa cee yóbbu nit musuma di ko loolu Cheikh Ibrahima Niass kër El Hadj Abdoulaye juddoo ñëpp ay wàllu yàlla lañ. su doon taaw ñu ne màggaa tax waaye ci ñi gën ndaw ci at la ndem sañ naa wax baatam ndaw mu judd ci kër a xam-xam fekk fa ay magam yu jàng ba pare te moom dalagut ndax sa taawi papa su la magee ñaar fukki at ñaar fukki at su la ko sa taawi papa magee nga ñëw fekk ko ba mu waree dal jàng mu dal jàng jeexal téere yépp bay taalif nga juddu maaseeg taawam yaakaar naa ne sa kër bàyyi su dan nit ñëpp danañ xam ne lu ak mag di joxe doo ko jël yaayam sax du fa ma mama rasta mooy taaw su kay asta topp ci mahmoud asta topp ci xadi asta topp ci ibra asta door a ñëw muy cheikh ibrahim xoolal fa mu départ ibra asta waaye xoolal grade yi ko ràng yëpp cheikhul islam baay na moo tax sëñ muxtaar mbàkke waxoon na ci tay bañ a seen mu ne ñëpp am waaye bu ne bàyyi rek yem ci xel yëpp dajandoor El Hadj Ibrahima Niass ndaw ku ñàkk kañaan mu judd ci kër ak wilaayatu googu ci kër ak xam-xam googu ci kër ak njub googu kër googu soo fa feeñee te mago yàlla laxasee na la mbalaan moom laxasewut kenn moo tax benn bés dafa julli suba ñëw toog ci lal yaayam bi fekk mama su jànqaa ngi wàcc toog ci suuf julli def awraadam yi ba pare di ñaan yaramam tàng muy ñaan nag moom fat seetlu sax baay bi toog mag naan yàlla yow yàlla na ma sàmmal sëriñ max mii na ko dimbale na nekk ndimbalam ci nangam bam pare ba raay bàyyi ne ko sama ndey a yow loo mel ni Mahmoud rek nga jur yow Mahmoud ñaan yi nga koy ñaanal mu ne ko yow li war a am yàlla sédd na la ko ba pare ki bokk ak yow ndey baay bu sàgganee du am dara du ma ko ñaanal lii rek la kat ndekete kon moom yaayam ci biir doomam yi xam na tànn ak yàlla. xoola rek bi muy judd bi muy juddu ngay gane àddina fekk maam Abdou Salah di tari alquran ak si bay waaja ak si ci minal jinnati wa naasi ñu ñëw ne ko soxna si am na. gone mu ne lu mu am ñu ne góor mu ne sang leen te andil ma ko ñu sang indi ko mu ne Abdou Salah taflil ma sa kaamil bi ci ñam gi muy toqantal bi ñu toqantalee ko kaamili alquran ma Abdou Salah su ko nettaliyaan ba pare ne maay góor ki ñëpp di su juutal sama alquran jaa ko barkeel bu toogee ba mu yàgg mu ne hee waaye nañ wax lim doog mooy góor. may tari alquran mu juddu ma taflil ko sama alquran ji ñu dem ba lu ma xam ci alquran ci moom laa ko xamee dëgg dëgg mooy góor Cheikh Ibrahima Niass nekk ndaw dalagut jàng dalagut jàng dàq yeeg ñi ci daara ji te du ko jaaree ci dàtt bi mukk nag dam leen colong rek jàpp ci bànqaas bi rek la ngaa yéeg na ma ngi ci kaw garab ga ma ngay takk ay xobi garab maa ngi dem màkka maa ngi dëkk nangam joxal leen ma leetar bi sama yaay maa nga dëkk nangam joxal leen ma lettre bi sama yaay maa nga dëkk nangam joxal leen ma lettre bi sama yaay te musta juum benn yoon wax ne joxal leen ma bii sama baay ndekete buy dem màkka ci zahir du fekk maam Alaaji Abdoulaye di dund waaye dana fi fekk maama su jànq moo tax le 31 décembre bi mu duggee ci Canada di war a dem aji màkka départ Dakar bi muy waaj a départ ay nit ne ko man de su ma doon yow may fomm sa yaay mii bëreetul yaakaar commencé lu nekk ñu di ko wax mu ne ma ne ñëpp ne teg mu ne ku waxam du dajee ku wax na ma ne danaa dem ba ñëw sargalanteeg moom lii xew door a xew loolu loolu kuñ ubbil kuñ ubbil may yàlla yi ngay liir rek yaa ko ñemee wax danaa dem ñëw fekk ko fi war mu dem ñëw fekk Baye Laaji Babacar daf koo garanti loon ne ko temps boo tasee jafe-jafe yàlla na la suñ bay wallu guddi gim njëkk a def ci bato bi mu ne gam-gam rek gëmm daal di gis am mbooloo mu bëri xàmmeewut ca ku dul Alaaji Abdoulaye Niass ak Cheikh na Ahmed Tidiane maam Alaaji dugalanteeg moom ay loxoom daal di ne ko may ànd ak yow ak foo mën ci dem mu ne kon lii mooy la Alaaji Babacar garanti loon ma li may wax nii dem leen ngeen seeti ko ci rexla ijaziya al ula bu Cheikh Ibrahim ndax ba muy aji màkka xalimbaam daf koo gunge xalimbaam daf ñu koo décriral ñëw andil ñu ko bàyyiwut benn détail waaye nag guddalut parce que xam na ne lu nit ñi war a jàng la mais la fa nekk su ko doon def ci ay centaine de tonnes lay doon Cheikh Ibrahima Niass bi mu nekkee ci daara di jàng sa sëriñ su nit ñëwaan soo ne taalibe bi kuy sa fuy sa saar nga ne nangam fooy nga ne nangam fuy sa saar nga ne nangam boo joxoñee baay ne fuy sa saar gone yi ñoo lay tontu ne la kii mokkal na bu yàgg lii firnde bi mooy maamalaay ji dénkaane na leen ay fan yu néew doon tukki biñ ñëwee sëriñ biñ leen booleet di tari di déglu seen sooraat yi Baye Ousmane Mariama Runge. di yéegaat ci boppi saar wi sëriñ daara bi dóor ko bàyyi ne ko waay yow kii gagut kii dafa runge te yéegaat na pour ñëw nga di ko dóor mu ne ko so yow soo ñëwee runge ñàkk a runge moo ci yem boo rungee ma dóor la ba nga dee bàyyi ne ko soo yaakaaree faateetil kitaab ba minal jinnati wa naasi foo ma gàggantee doo ko gis mukk taalibe bu nekk ci daara su ko waxee rek alkuraan jàng ci dënnam marhaban bi Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Niass ànd naag magam jim bokkat ndey ak baay ñi ngi ci daara ñu dugg ci gott bi saaw mi song leen mag gi ci yërmande ci rakkam mu jël Cheikh Ibrahima di ko làq mu ne ko Mahmoud boo taxawee ci kanam saaw mi jam la man la mënut ci man dara jël mag gi làq ko ci gannaawam saaw mi summeeku ba dëgg yi jeex li may wax ni billahi lazi laa illa huwa amee woon naa ci dégg saaw mi li taxit ma ne amee woon naa toxu na ci loxo xam naa yéen loxo ba mu nekk xam naa foog na ne raw na waaye bu ma téye micro di ko wax war naa xam ne raw Mahmoud buub déggi saaw bi yëpp ñëw andi ko sa mag jot ndeeg bàyyi mu magee la juróom-benn at njëkk laa dalee téere yi juróom-benn téere booy dal fekk jeexal na ko su sukkee ci sa ron ne la sëriñ bi yàlla def na ci yow lu mu defut ci moom defut ko ci keneen ku dul moom it te ci daaraay alquran la Baye Mahmoud gëj a wax Cheikh Ibrahima Niass naan ko Baye wala Ibra sëriñ bi rek la koy ooyee même bu demee ci kanam maamalaaji bu dee sëriñ bi rek Baye la ci na moom te boobu maamalaaji ngi dund taxan sax Baye daf daan jiital taalibe yi. di sikkar ci seen gannaaw ñuy taxaan muy sikkar buñ paree ñu yenu seen say yi mu topp ci seen kaw di sikkar buñ ñëwee daane seen say yi ku nekk dem taalibe mënta muñal loolu moroomam te seen bët yi bëti zahir la gisut mbay yàlla gim laxas ci kooku moo tax suñ ko xamoon duñ def noona ñu ñëw rek ne ko Ibra moom duy taxan mu ne bu ngeen demee rek ku nekk na mandargaal aw sayam ñu dem rek ku nekk mandargaal saw say ñu yegg si rek daal di jóor taxani ngeen ñu ne waaw ku nekk mandargaal na ñu ne waaw maamalaaj yi ñëw taxaw ne ku nekk na jël aw sayam ku nekk jël aw say ñu ne say wi ne ku ko moom bàyyi ne man mu ne te ñii ne ñu ne taxanoo mu ne ah say wi de maa ko moom du wax taxan naa de say wi maa ko moom parce que moo leen dàq taxan ñee dañuy jàpp di fàq di faxet moom dafay toog say wi takk boppam dem ñibbi. sa sëriñ Cheikh Ibrahim dafa am jenn magam jong xam ne daan def laaj buñ laaj rek bàyyi laaj moo zéena boog bàyyi tontu am yeneen ci mag ñi du ma tudd tur tontu bi xaw yéex lool maama laaj am ab téere bu bees daal di koy jox ñaar ci mag ñi ne leen yër leen téere yi ndax bu Ibra kii di tontooti ngeen tontu ñu yor téere bi ñu ñëw ci dars bi maama laa ji jàngale ba mu yàgg mu ne waaw ku ci xam yonantu nàngam nag moom luy kawteefam mu ne man de xam naa kawteefam biñ paree bàyyi na yee téere gan dugg na ci kër gi. ñu daal di jot ci téere bi rek ñaari fan ñu mokkal téere bi ponkalam téere ñaari fan ñu mokkal ko ñëw toog rek bu maama laa ji ne waaw yonantu diw moom ku ci xam luy kawteefam. baa na man de xam naa ko daal di jóg nettali bu ñu waxaatee balaay ma zéna mu ne man de xam naa ko daal di nettali maama laa ji ne hee sama denc ba nag gis ngeen ko sama denc ba nag gis ngeen ko yàlla def koo mayoon ci sëkkaa loo xam ne amutoon nattukaay mayoon ko ci yërmande loo xam ne amul nattukaay mayoon ko ci fit loo xam ne amul nattukaay parce que yàlla nag ay bagage am du jël du jël ay bagage yi bagages yi chinois di ko monteel koo xam ne moom la bëgg a fal pour mu liggéeyal vrai bagage la koy jox moo tax Cheikh Ibrahima ku teel a mokkal alquran la ku dégg alquran la ba wax moom ci boppam ne gisuma ku ma ko gën dégg moo wax ne ñaari sëriñ laa am sëriñ ci zahir alquran la ak sunna loolu mooy yàlla ak ab yonentam lay topp alquran ca yàlla la jógee sunna jógee ci yonant bi kon su ne alquran ak sunna te gisuma ku ma ko gën a dégg te bam ko sampee ba léegi gisuñ ko ko fel mbër moo man ci doon boo sampee ndënd ci lan ci ndënd digg bi danaa mbër mu la romb fel ko waaye mbërëm gisuma ku ma ko gën a dégg bam sampoo ba léegi sempee kooku kooku mooy sa sëriñ bi bàyyam demee màkka ñit si mama su jànq dafa jël samsam zam ñëw ba ci bàyyi mu ne ko ibra kaay mu ñëw mu ne ko toogal mu toog mu ne ko jàllar jublu penku comme ni ngay toogee sa sa àlluwa mu jàllar mu ne ko am samsam zam bii nga ñaan yàlla bala nga koo naan yàlla may la nga wattu alquran am xam-xam sellal ko fekk sa waajur a ngi tund yoon yónnantu bi daf ne zamzam li ma ba zamzam yéen a jàng ko naanaale yàlla daf la koy fajal loolu moo tax mama su jànq am xikma jël ki nga xam ne mooy doomam indil ko loolu tegal ko ko ne ko ñaaneel nii moom it mu topp la ko ndigalal waajuram wax ñaanee ko noona alif na ruuhul adab ci kanam mamalaaji Abdoulaye téere bi def ak mamalaaji Abdoulaye atak ay weer mamalaaji door a génn àddina kon lam ñaanoon ca zam sam sa ñëw na Cheikh Ibrahima Niass bi kër baayam xatee pour lefam wuyaatu wi kër baayam dafa xat ci lefam wu yaatu wi léegi-léegi bu may gi réyee dootoo xaj sa kër baay keroog ba sàkken wari di war a dajjeeku pour mu moom mu buub mën a dem yekki ko feneen keroog ba muy génn laal nañ maam su jànq ba deret génn waaye la mu waxoon Cheikh Ibrahima ak Mahmoud ñi doonoon ay doomam daf ne leen dama bëgg ngeen wacc ma fii ma toog ci sama weti wujj yi bu yàlla di jël sama bakkan bi jëlee ko fii ñu denc ma fañ tëdd bu ñuy dekki ëllëg ma dekkee ndoor ak ñoom bu ñuy wax ne soxnaay ah, alaaj Abdoulaye yaa ngi nii waxaale ma ci Cheikh Ibrahima moo nettali mu ne yaayam bi maam ji tëddee nit ñi di seede ku nekk di wax dafa ñëw ne ko ñes yaa bari xam-xam yaa yaatu wilaayatu waaye yaa ñeme njël ay na sama ndey moo bay mi tëdd lu nekk nit ñi seedeel ko amoo dara looy wax rek lu may ne moo ñeme njël baay mu ne dañu ma di topp sama waxi yaay ji ba njël waar ci sama kaw ma door a xam la sama yaay doon seedeel sama baay waa jigéen ju mel noonu kum xoolal ni mu xam nga maama jalaay toog na benn année mu am néegam yu daanu ci buntu nawet mu dajal ne soxna yi ba ñëw mu ne leen ah néeg ya daanu nañ kat ma leen di boolante ñaar ñaar ba nawet wàcc ma defar seen néeg yi ñoom ñëpp ñu ne gërëm nañ mu bàyyi bañ dem kum oo rek ne la koo yaakaar ne moom nga mën a dëkkat nga ne astu jànq mu oo astu jànq ne ko yaakaar ne moom nga mën a dëkkat mu ko ñas koo ma tànnal ma dëkk ak moom xam nga wax dëgg yàlla ku mel nii bu juree war naa barke kon xam ne dafa romb saami yàpp mu ne saami yàpp bii sama borom kër a ko war a lekk dem jënd ci ab saam ñëw di ko togg ba mu commencé xeeñ wujjam révolté dem ci borom kër gi révolté maam laa ji ne ko astu jànq kaay da ngay togg ndawal mu ne ko waaw ñes mu ne ko indi ko mu ne ko ñoragul mu ne ko noonu laa ko bëggee wax wujjam ne ko demal indi sa ndab mu andi ndab mu yekkal ko ko raxas ci nam dëpp wujju wa dem togg lekk sànni yax ya mu xëy jël ñetti yax def ko ci àndaar def ci ndox yëngal naan pour li ci biiram bi bu lakk li ci biiram bi ku ànd moom doo lakk mooy Cheikh Ibrahim kon dafa fay cash pour am doom ju tolloo kooku waaw gëléem gu rëy gi ñu sëf-sëf bu rëy bi jaarale ko ci soxna su sell su yéeme si su nit ki ñëwee rek war naa yéeme moo tax wax nga ko gis nga kim do tànn ak yàlla la benn naar gànnaar daf ne maqaamaab yi doomu aadama yi di xëccoo góor yàlla yëpp a koy rëj rëjoo waaye yàlla moo ne cas Cheikh Ibrahima ne ko dëjj ci cheikh ci chaise bi moo ne ko cas aqaadahu alal kursi la wax moo ko ne cas ne ko dëjj ci kaw chaise bi ne ko yaa ko mu ne yàllaa defal loolu Cheikh Ibrahima. Kaffrine seetee ay jeexitalam yépp lu mu dégg lu jubul rek mu jël xalimbaam tontu lu bàyyi mos a dégg lu jubut mu jël xalimbaam tontu problème mu góor jigéen ñii nga fekk tey ñu di ko def nga xam ne France gii nga xam ne pare na pour feebar bu ko gaar mu wàll ñu ko bërki déem boo njaay lañ feete takkante ñaari góor yi njëkk ci France officiellement ca mairie ba su fi fekkoon Cheikh Ibrahima bu royatalee xalibaab wër këri diine yi sëriñ bu nekk mu wax ak yow su dellu see nguur gi rangé loolu waaye yaakaar naa ne nguur goon xam ne ay Makki nga fay fekk ay Muhammad nga fay fekk ay Moustapha nga fay fekk dëgg-dëgg yàlla ku nekk mën naa daganal góor jigéen ba mu des googu nguur waaye soo demee ci assemblée nationale fekk fa ay député yoo xam ne ay Mariama ay Safiyatu ay Muhammad ay Ahmad ay Moustapha ay Daouda yaakaar naa ne ñooñu itam duñ votel kenn loi ñuy daganal góor jigéen xam nga luy problème bi ñaari góor buñ takkantee dañuy dem ba mu yàgg ñu xemmem am doom te mënuñ koo am lu ñuy dem adoption su ñuy dem di adopté mooy nga jël doom ne kii ñun ñoo ko baayoo ñoo ko ndeyoo waaw ñaari góor yi ku ci do jabar ji ak ku ci do jëkkër ji Jean mooy doon ndey ji wala Paul mooy doon ndey ji ak Jean kañ lay doon ndey te fekk lii am xaabiliya am doom yàlla defut ko ci moom gis nga yàlla léppam lay préparé nit ki muy préparé pour mu am doom soo demee ci organes génitaux yi da ngay fekk yàlla bindee ko nu uuteeg ni mu bindee góor dangay fekk mu am fii mbuusi nen am fii mbuusi nen am ñaari trompe yu ko tiim mel ni loxo weer wu dee benn côté ñoral am nen mu jël ko su yegsee ba ci ceeru trompe bi fa lay tasee ak booyadaat mën a wiye su ko wonnee ci lay door a ñëw ba ci place yi njur mu tëdd fa su fa defee cent vingt su fa defee quarante jour yàlla changé ko mu mel ni luñ yëy ba mokk mu defaat quarante jours yàlla changé ko mu mel ni yàq ak yàpp ñu dem ba mu yàgg mu defaat ke cent vingt jours mu defaat quarante jour muy cent vingt jours soo ko defee yàlla ne su ma ansha'naahu xalqan axara man yàlla ma andi beneen créature de nature nouvelle nga daal di koy andi sëmp ko koo koy yeggale fa neuf mois yi juddu ki amut xaabiliyaab loolu noo ko mën a defee ndey ñooñu nañ leen xaar ba ci kanam tuuti seen problème yi danañ leen won ne ni yàlla rëddee la waaye du ni sa xel mi daganal foog naa ne taal léegi wax na ne daara yi nga samp école yi nga samp muqaddam yi nga defar aarif yi nga defar mais ñooñu kan moo ciy doon góor jigéen kan moo ko ci accepté kon ndekete du dañoo war a xaar ba mu doon loi à l'Assemblée nationale ñuy door a defar ay plancard di dox ci mbedd mi mais dañoo war a former nit ñi teg leen ci yoon moo tax damay waxtaan ak benn waay ci France mu ne ma dafa am ñoo xam ne ci naxe lañ nekk mais man danaa takk ci yaat ñëw Sénégal xeex ma ne ko pour lan mu ne ma dimbali jullit ñi parce que dañ leen a coloniser ma a ko lu ñu leen coloniser mu ne sëriñ yi leen téye su ma waxee ñu naan Cheikh Ibrahima Niass su ma waxee ñu naan Cheikh Serigne Touba su ma waxee ñu naan ku nekk mu lim ñu lay tuddee colonisation décolonisation moom lay jaawale ak colonisation le mot dé bi nekk ci kanam su ko ci defoon kon lay àgg ci vrai sens bi décolonisation la. ma ne ko lu bon nga bëgg a jëli Sénégal mu waaw ma ne ko ban nationalité nga yore mu ne ma français ma ne ko fii bala nga koo tëj lii baar dancing fii bala nga koo tëj jigéen ñi taxaw ci mbedd mi bala nga leen a ñibbiloo seen kër yi bala ngaa jàllar bi église yi soppali ko ay juma am nga liggéey prix devant toi walis ngay dem feneen ma ne ko xam nga ñun ku bëgg a jiyaat ci ñun dimbale ñu nooy def mu ne ah, ma ne ko da ngay dajale euro yu bëri soo demee góor yàlla goo gis bu taxaw nga tabaxal ko école di ko fayal oustazam bi di dimbale élèves yi ci matériel buñ jàngee ñuy xam ma ne ko su fekkee ne ñooñu ñu ngaa bëgg nangu li nekk seen loxo xam nga noo koy defee mu ne ah, ma ne ko da ngay dem tabax école nga toog jàngalee nañ daan jàngalee nga yaree nañ daan yare nga yee nañ daan yee dugal ci seen xol bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo paree ñooña buñ la fonkee yow rek la ñuy déglu waaye ña def loola ba pare soo demee ca ñañ réglé nga foog ne mën nga faa foree matt da nga fekk borom moo la gën a rëy sébb boo tut sax mu def la matt dugal ci sébbam yi xam nga lu tax ma ne mu def la matt dóobu ci sébbam yi sa sëriñ ba mu jaaree ba mu jaaree Rome nit ñi ne ko ndax gisante nga ak pape bi mu a jotumaa gisante moom ñu ne ko xanaa da doon moytu gisanteeg paap bi mu ne laay man ma moytu gisanteeg paap bi paap bi suba ko gisoon rek mu dem caalang bay billahi bu tasewoon ak moom mu dem caalang bay non il est complet Cheikh Ibrahim te kaana xakiman xoolal dëkki séeréer bi mu dem di leen tuubal rek bàyyi amu du caam jiitu ñu bind listi bi ba mu mat ñaar téeméeri nit ak nangam ñu ñëw ñu liir liste bi ba mu jeex rek seen njiit li ne bëri jóg ne tuuti yàqu na ñu ne lu tax mu ne binduñ ma binduñ ma man mi jiital man mi jiital kuréel gi kenn bindu ma tuur gi yàqu na yàqu na bàyyi ne ko hé mu ne ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko ku bind ñii mu ne ko sëngóor si mu ne ko yow yaay kilifa gi mu ne ko waaw mu ne ko looloo tax bindul la kilifa gi moo lay bind daal jël kayit gi rek bind turam mu ne waaye nay nii waay waaye ñas yaa yeewu yàlla lu mu wax uduu ila sabili rabbika bil xikmati soo amul xikma mënoo daawa islamiya salima daawa islamiya salima mënoo ko féeg amoo xikmatu Cheikh Ibrahima dafa am xikmatu soo ñëwee di def ak moom diingalante mu yolomalal la ba nga la nga gàddu woon daanu mu jox la loxo yëkkati ba nga xam ne ku ta teey la tabe la ku baax la nga dëpp ànd ak moom jox ko sa bopp noonu la doon def xam nga danaa koy nettali te détails yi jar nay nettali xam nga am na séeréer soo xam ne dañoo xëy rek clamé ji bàyyi ne lu tax bàyyi di bay altine ñu convoqué ko mu ñëw rek chef ne ko waaw séeréer yi dañoo la woon mu ne séeréer yi wax mu ne wax leen ñu ne chef sëriñ ji dafay bay altine sëriñ ji dafay bay altine mu ne ko mu yi ñu ne da ngay bay altine te altine dafay indi ay njéeréer mu ne waxal séeréer yi ne bayuma altine man samay tool laay bay coow li jeex na iskat c'est ay toolam lay bay bayut altine parce que ñoom ñoo tollu ci moytu altine mais baay bu xasee moytu borom altine lii desati lépp ci li boromam moom ay bagaasam lay doon lu mu koy moytoo loolu moo tax maam El Hadj Abdoulaye soo ko seetloo musta nangu ku daloo samedi musta nangu sax ku samedi sangu samedi musta nangu sax ku tukki samedi musta nangu daray samedi ñu ñëw rek Cheikh Ibrahima daal di ñu jox leen seen yére yi rek mu sangu sol rek nit ñi daw ñëw ci maamalaaji bay bay Ibra sol na bosam mu ne oo leen ma ko Ibra waxoon naa ne bul daloo aset mu ne bay man ragaluma aset boroom aset laa ragal mu ne waaw yéen bu leen daloo aset Cheikh Abdoulaye mbooloo mi yàlla na yokk mais li muy bëri bëri ñi sell xam nga leen ñi dëggu xam nga leen ñi xam xam nga leen ñi jubadi xam nga leen soo ko waxee ook soo ko waxut kat nag su nekkee xakiim ni yónnant bi doon def lay def dafay yaree jikkoom yónnant bi dafay ñëw gis kuy maanaam su doon ne ci jamono jii la mu gis kuy tux mu ñëw naan ngeen moytu tux baaxul ndaxte nangam waaw léeg-léeg nga gis kuy tux waaye nangam ba kenn ku nekk naan baa yéen mbaa kii gisul ma su fa génnee rek ne ko yàlla loolu mooy yar yi xakiim moo tax maam El Hadj Abdoulaye ci biir këram xam na njabootam gi kenn ku nekk ni nga mel moo tax ba mu leen waxee bu leen sol aset ñëpp dem tënku ca loola ki ragalut aset sol ba mu ko ko waxee mu ne borom aset laa ragal mu ne ci leen ko mu sol aset waaye yéen bu leen ko ci topp bu leen sol aset mais demal nga topp maam El Hadj Abdoulaye doomam yi doomam yu góor yi ko yàlla may yëpp ku ci génnut àddina samedi rek dimanche la génn àddina kon moom xamoon na li muy moytu doomam yu góor yi sans exception gis na kenn ku nekk ci ñoom soo ko toppee bu génnul àddina samedi dimanche la génn àddina doomi maam El Hadj Abdoulaye yu góor yi kon kañ amoon na droit ci moytu samedi waaye am na koo xam ne moo ëpp doole samedi du ko moytu parce que famille tibbee moo tiim samedi xam nga ismullaahil azam bi ko fi nit ñi di wax benn waaye ñëw ne bàyyi ismullahil azam laa soxla bàyyi ne ko man dama ko cee xàmmeewut man turi yàlla yëpp azam lañ pour man samay fas lañ bu ma ci soxla war gis nga baay fu ñuy war jàng yaa latifu su fa bàyyi jàngee yaa muntaqibu yàlla faj soxlaam si yaa ko war a pour ut ñuy war a jàng yusru pour am yusru su Cheikh Ibrahima jàngee muntaqibu soxla si faju parce que turi yàlla yëpp yem ci moom bunt yëpp la mokkal fu mu jaar jàng sama sëriñ wax na ko fi léegi nit ku nekk da ngaa war a um koo àndak ak Baba Lamine mi jël oto duy ko ay nit ñu amut kayit ci jidda jëmal ñoom Makka contrôle renforcé ci entrée bi à à à peu près quinze kilomètres de Makka nga ñëw taxaw nga fekk ñu renforcé ko nga ñëw ñu bàyyi leen yéen ñëpp ngeen jàll parce que yow ki nga doo waruñ laa téyel koo àndat Cheikh Abdoulaye nga foog ne ñi ànd ak yow dañoo ñàkk fayda gis nga ñi ànd ak yow ku ci baayam di wax ak moom ba tafli di dal ko mu fomp suñ ñëwee tàllal seen loxo yi nga tafli ci ñu raay yi yow ñu foom su leen keneen taflee baayam ji ko su wax ak moom tafli di dal ko mu foom bàyyi yow nijaay wax tafli dal la bu dee mag waaye yow silvissé woo ñëw tàllal sa loxo yi ñu tafli la ci nga raay ci xarxanam bi raay ci dënn di jóg dem nga faa séentu loo xam ne fekkoo ko ci ñangay fomp seeni tafli xam nga Cheikh Ibrahima Niass mooy firi alquran ba mu yàgg mu téye jukki bam yàgg mu ne xaax ñëpp na teg bu baax jàllar bi ko naar gànnaar yi jóg taxaw fu ko tafli ñu njëkkalante ko naar bu jot ci tafli bi ñibbi naar wu jot ci tafli luy ñibbi naar gànnaar bu weex am xam-xam di shérif am wërsëg su toppee nit ku ñuul lam ko toppee amut ca gàdd ga su amoon mu des ca gàdd ga déggee naa ci kon ne bàyyi man ña nekk Mauritanie ñëpp ña soxla dëgg-dëgg ñooy buubu ñëw su ñëwee ba ci sa sëriñ ñu ne ko defar ñu dañoo bëgg a baax kon kuy defaree comme ni muy defaree amu fa kon su fa amoon ñoom ñu toog fa moo tax mu ne ndax yow mos ngaa gis ku mel ni man ndax sa bët mot naa tegu ci ku mel ni man ni may sóobee ni may yekkee ni ma leen di tegee ci sharia ndax sa bët mos naa tegee ci ku mel ni man moo tax naar gànnaar bi dafa laaj laaj xamul ku muy laaj mu ne yow weer mi nga xam ne ñëpp fekk nañ la fi yow laay laaj ndax yow mës ngaa gis ku mel ni Baye man laajatuma duudoog Samba ak Demba ñooñu bër ci démb lañ fi ñëw waaye yow ku judd rek ci sa kanam la judd yow weer ndax mës ngaa gis ku mel ni Baye su fekkee ne mosoo koo gis ndax mos ngaa dégg ku wax ne mos naa gis ku mel ni Baye weer wi gis tontoogut te yaakaar naa ne tontuwut ne gis na ko te waxut ne gis na ku ko gis te lu mag weer mag nit su laajee okk ma ngeen okk waaw xam nga lu tax dama fee dégg fii ci waxtaan wi dama xamatut taalaa ko wax wala Abdou Barhama ko wax waaye dégg naa ku ne fii duñ la may lépp nga jël lépp dégg naa ko fi de may nañ ma lépp gis nga àddiye jiñ ma jox maa ngi giñ ci yàlla xajut ci enveloppe gaa yi taalibi baay yi toog ak yow nga waxtaanal leen ci baay ci bisi ngénte baay ci weeru rajab ci dëkk ay soppeem loolu xajut ci enveloppe maa ngi gën ci yàlla loolu moom a gënal trois milliards su ma ko waxee nag ku ci milliards dana dafay wax rek maa ngi gën ci yàlla moo ma gënal trois milliards mais nag mu def ko ci condition yoo xam ne ku jox sa bopp bàyyi rek yaa ko man ku jox sa bopp bàyyi rek moo mën loolu léegi-léeg àddina bi xam nga faydu bi bi mu tàkkee bees mag ñi dañoo dem fu nekk ba Gine Bisaaw fu nekk ñu dem fu uti ay xërëmkat ñëw indi leen ne leen fay leen faydu bi biñ duggee xalwa biñ génnee seen mag mi ne leen faydu bii de bu ci sellal yàlla te fas yéene arrêté ko bu yàggee da nga dem mbokki boobu moom baleen ko l'islam moom fu mu yegg rek faydu bi dana fa yegg te l'islam a ngi dem foo xam ne sax faydoo ko fa yóbbu monsieur le maire billahi da ngay dem fenn ñu ne la foo dëkk nga ne Sénégal ñu laaj la fuy Sénégal at mu jot su ma demee añ Màkka rek danañ ma ko laaj danaa tase ku ne ma foo dëkk ma ne Sénégal nga ne ma Sénégal fuy Sénégal waaye soo ne Kaolack rek ñu ne Ibrahima Kaolack yi plus connu que le pays grâce à un homme. C'est un homme omnipotent. C'est le, le vivificateur de l'islam et de la charia. mu ne loolu ma wax noonu Ousmane Tanor Dieng def na ci seede alhamdulilah euh, malheureusement malheureusement pay par par parlo dafay tax sax li Sénégal am parfois am ñu koy réeral parfois muy am ñu koy réeral xam nga ku dem jaamiatul azhar imam bi gisal la boppam ne la kaay jiite mu am kersa sëgg mu ne ko fekkee ne da nga ko préparé wul mu ne ko fal yekunil aana dóor dokk bi mbicc mi wadd ci gannaaw mu yéeg di leen xutba ci seen làkk ba ñoom ñëpp ñuy wax ndax lii géwént la am déet mu jeexal toog jógaat yeggale xutba gi wàcc di jël alquran ji comme na ko jibril doon wàccee ci yonent yàlla muhammad mu pare ñoom ñëpp ñuy barkeelu ci moom moo tax benn waay dafa xool Mahmoud Moussa ba mu yàgg mu ne ko seen sëriñ mi ne dafa jiite jaametal Azhar mu ne ko ah mu ne ko moo ko ñaan moo ko ñaan waa Azhar may ko ko mu ne ko waaw dëgg la suñ sëriñ moo ko ñaan ñu may ko ko waxal sa papa mu dem ñaan kuñ dul jeexal léppam loo wax doy na gis nga taabal ji star star yi nekk ndukkumaan yëpp ñu ngi fi te xaw ma frofle si karwaaye du fi te am na ñoo xam ne gàmmo gi buñ fanaanee di wax ba bër set wax ji lum neex neex ñoom sikkara leen am koo xam ne sikkar si lum neex neex wax a ko am na koo xam ne wax ji li muy bëri bëri li ci Cheikh Abdoulaye Wilane di wax rek a ko ci ñor am na ci keneen koo xam ne li Baaba Lamine di wax rek a ko ñor am na koo xam ne li Baye Tuuti rek a koy wax rek a ko ñor moo tax dañuy wax li ñuy wax buñ paree ñu wàcc leen ak ki leen di fëlëm bu paree nag ki leen ëmb indil Cheikh Ibrahim ñu bàyyi koog yen mu yeggaleeg yen guddi gi su ko defee ñun itam ñu jàll ci yeneen mbir andi woo ma pour ma wax ci Baye ba Baye jeex de parce que Baye Niass il a vécu soixante quinze ans. pour nga wax ci Baye ba mu mat il faut que da nga wax soixante-quinze ans parce que baay ba mu gënee àddina ba bi muy génn àddina dundam bi lu nekk jar naa nettali kon juróom-ñaar fukki at ak juróom moom nga war a wax guddi yi ak bëccëg yi ku ko man moo kenn du ko wax mu jeex kenn ila muhammadil amin amiru yende almanbaul almanbaul kabir faydatu tijaani qad tadafaqat bi yende wal anwaaru qad tafattaqat wa hadratul qudsi qad tuhuqiqat wa til ajam qad tufuwiqat zakartuhum bilxaaliqi lmannaani raghibtuhum aydan ila aljinaani daawtuhum laha min anniiraani aqulu xaqi saabitu ljinaani kullun ajaaba daawati kullun ajaaba daawati nga dem foog xam ne bokkoog ñoom xeet bokkoog ñoom waaso bokkoog ñoom deret bokkoog ñoom dara nga ñëw taxaw ñu taxaw ngay waade muy dugg ci seen xol yi c'est parce que kàddu gi génn yàllaa ko laxasee mbóotam pour mu dem mu ne kullun ajaaba daawati bi ma waxee ba oo leen ragal loo leen wax leen la ca safara mbugalee fa nekk wax leen xéewalee nekk ca aljanna waat leen waat leen waaye ba ma leen ooyee ñëpp a wuyu sama côté bi ñëpp nangu sama appel bi kulukuha wal kubara asfal fa qultu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu l ilah fa qaalaha al kuffaaru wal majuusu wal umara fa taabati nufuusu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi rek la bàyyi wax xéefar yi wax ko majuus yi wax ko buur yi wax ko baadolo yi wax ko ñi ñàkk wax ko ñi am ñàkk ñi am wax ko waaye lu ca bàyyi teg fa taabati nufuus bakkan yi sel bakkan yi sell kon ndekete Cheikh Ibrahima loolu rekk ay mission gis nga ki nga topp bakkan yi sell rey leen ci seen nite gi dekkal leen ca yàlla loolu rek fi indi Cheikh Ibrahima rey leen ci seen nite gi dekkal leen ca yàlla gis nga sufiyanke yi bañ leen laajee luy tasawuf dañ ne yàlla rey la ci sa nite gi dekkal la ca yàllaam nga loolu rek a indi Cheikh Ibrahim mooy daf naan la cas rek ne la wuru ci jëmm yàlla ji ki njëkk dem jofi ca jëmm yàlla ja kan la yonent yàlla Muhammad moom lañu rañaanoon weer wuñ ko rañaanoon weer wii ci la baay juddu ci lañ tase jox ko tur ñi ngi nii Kaffrine di feetu turam wi bàyyi rek a ñemee wax loolu من كرام وفيه sëñ ma tëjee lu gàtt gannaaw bu ma la gërëmee ngërmande lu yem amut yem dama commencé woon di fi nettali xissa ci ñi bëggoon a fay faydu bi bañ génnee dañ ne leen faydu bi moom ku ci sag jaamu yàlla nangu soo continuer danga nga bokk moom kay lii solution bi mooy su ngeen amee weexal gu rëy ñi ko topp mu xaddam yi ko topp ñu def ñaan mbëkkante seen bopp yi ñoomu neen ñuy tojante bopp loolu am na de loolu am na de sëñ Ousmane Cissé mën naa jote léegi ak Alaaji Saalum boo tëjoog sëñ Ousmane Cissé ne ko loo jotee moom xamul boo tëjook sëñ euh, Alaaji Saalum nekko lu ngeen jotee xamu suy lay sax laye du jub moom ci boppam sax dafay mujj fidd ci lay xamuñ ñaan ngaa leen fenqale te maa ngi gën ci alquran ñun ñoo man ka doon ñaan waaye moom dafa def ittey ñaan pour yàq te ñun defuñ ittey ñaan pour jubal liñ fi lim ci ay kaar li leen encadré ci ay jàngalekat la fa nekk ci ay aarif billahi la fa nekk ci ay muqaddam yuy yare maa ngi gën ci yàlla 24 heures seen kurus yi xajut ci pays bi yëpp muqaddam yi àndaat. mais fooy fekk ñu def ko fenn moo tax dafa am ñoo xam ne nag ñoo mën seytaane seytaane dafay dugg gas fa kàmb ñu bàyyi seytaane ba muy nelaw ñu suul kàmb gi joxante loxo mu ñëw fekk leen fañ gasoon ñu lal fa basang ñoom ñaar toog di naan seen attaaya du xam ndax ci kaw kàmb lañ ko lal wala dañoo suul lal ko ci su ko defee mooy am problème parce que dootu fa bëgg a jóge ndax dafay dañ kumpa ndax paxang fi wala ndax ñii dañoo am fooraay bu yem ni mën a toog ci pax kooka moom bana leen dootu gas pax li ma wax nag ay léeb la mais am na ñu xam li may léeb ay léeb la de mais am na ñu xam li may léeb Cheikh Abdoulaye Wilane nii seede na ci Baye Tuuti seede yu kawe Baye Tuuti mii seede na ci Cheikh Abdoulaye Wilane seede yu kawe te billaahi du ma dellu gannaaw ci benn ci lu ma waxoon ci moom maa ko wax ne ko yaa ma raw ci bàyyi ba mu bëggee téye gémmiñam gi dama ne ko déglu ma man ki ma indi ci àddina bi moom Alaaji Ibrahima Ñas ñoo bokk ndey ak bàyyi man pour ma doo taalibe bàyyi dafa yomb di nga judd fekk sa bàyyi doon taalibe bàyyi man sama yaay dañ koy jàngal salaatu fatiha mokkalagut ko am fat ko dañ koy sas salaatu fatiha mokkalagut mu ànd ak bàyyi max mu ñuy julli ji tàkkusaan Baye Mahmoud ne ko sama ceddo bi day mi mi ngi ci salaatu faatiha dafay sóobu te waru cee yàgg bàyyi ne ko xam na yàlla ñu julli ji dellu si ñu di ko sa salaatu faatiha mu naan sa talagu bax gi ma jàng tubaab doo am nilaar xam nga lu ko waral suñ xëyee école ubbi ñu ñëw bàyyi di ñu ñaanal sama yaay bu ñu yóbboo mag pap sama mag suñ tàllalee suñu loxo yi rek su papa tàllalee sama yaay tàllal rek ma yor sama loxo yi sama yaay di ma rëkk di fëgg man ma yor sama loxo yi rek bu fëggee fëgg rek bàyyi bàyyi mooy dagg ñaan gi ne ko bàyyi ko lu mu soxla su ñëwee dana ko jël. billahi wallahi tallahi xasaman bi rabbil izza ñu xëy ñëw rek ma def entrée en sixième aw ma ma ne ko fa ñukk ne mécanicien laay door moom man Nazir ñes ne ma sama bakkan bi laa ci teg doo fi doo mécanicien. sama yaay ne ma sëtëb alaaji Abdoulaye amul dépense te buñ ko laajee masala mu tontu bëgg naa koo jur sëtëb alaaji Abdoulaye buy maye alal te buñ ko laajee masala du tontu bëgguma koo jur fekkee ne loolu laay am ci yow ñi la jiitu woon niñ dee yàlla na ko dee. Nazirou Niass ne ko duñ ca yegg maay xeex ak moom ñu nekk ci maag moom lu war a man ñaari weer benn bés mu ne ma bàyyi damaa bëggoon ñu waxtaan ma ne ko ko acca man boobu noo sonn naa mu ne ma bàyyi xeex bi fi ma ko àpp pour nga jàng mënoo koo fa àpp pour ñàkk a jàng te ngaa jàng man ko commencé d'accord naa tey keroog laa commencé jàng cm ma laa defee entrée en sixième CM1 ci bi laa defee entrée en sixième candidat libre jàll ko dem Égypte ñu defal ma test ma def seconde man aw ma BFEM damaa tëb classe yi erdaad yi yëpp dama koo tëb erdaad yi yëpp dama koo tëb xaami sa ibtidaa yi laa demee àgguma saadi sa ibtidaa yi kon la bàyyi doon wax ne lim soxla bu ñëwee bu ko tàllalee ñu jox ko mu tàllal may dem bay def baccalauréat ma dem Arabie Saoudite topp wutam xaalis topp wutam xaalis ba exam ba année scolaire bi di waaj a jeex deux mois moo des ma door a jógee Arabie Saoudite ñëw te année boobu laay def baccalauréat ma ñëw nooru ne ma bàyyi man su ma doon yow may àggale ji utam xaalis bi yow année scolaire bi moom naawal nga ko rek ma ne ko ma ne ko nit ñi. wax ne defuma examen moom kay naa def examen rek su ma amee dóoru saani demaat ñu ñëw ñu jël kër man ak nooru rakki Cheikh Mooma Nazir ma dem fanaan ca kër ga tëdd bàyyi teg baaraamam bi ci sama dënn bi di bind di bind di ba mu jeex mu jox ma saafara ne naanal ma téen ak butéel bi ba mu yàgg mu nangu ko ne ma ñi la wër doo leen jox ma gëstu ko ne gisuma kenn di gisatuma bàyyi ma yeewu musiba bi mooy xaw ma benn xaraf ci lim bind ci sama dënn bi billaahi wallaahi bi may defat fukki fan ak juróom fekk na programme terminal bi téere yëpp laa mokkal yépp laa mokkal ña commencé ca commencement année bi maa leen di jàngal mantiq maa leen di jàngal aarut maa leen di jàngal maa leen di jàngal miraas te Bachir Niass mi ngi may dégg damaa dem rek waxtaani këram fekk muy jàngal kenn miraas ma ne ko man de yuusikum laay jàng mu tëj ma xam ne miraas du mokk mu a ma bàyyi miraas ma ne ko mu ne ma lu jomb la déglu rek ma déglu téere miraas bi mu xarar miraas bi yëpp barke Alaaji Ibrahima ma matul deux heures de temps ma jàng mu dugg ci sama dëgg bi grâce à Cheikh Ibrahim sa sëriñ li ma fi wax yëpp ay zawahir la lépp lu bët di gisee la mais mission am dëgg maa wara al ayni la nekk wa ma wara al aql sa sëriñ liñ ko sujjuutalee daar yëpp ñëw du lu bët di seede waaye bu taxawee nag bët seede xam nga ku xëy am say doom naan Sidi Ibrahima yi du tus ba mu yàgg sa doom yi mos di làqatu di wax sa nopp for sa doom yi wax loo xamut war ngaa xam ne jaar nañ fuñ jaarut am na benn colonel bu mag ci armée bi mi baay bu kawe frère am koy contre ci baay ba mu yàgg mu jël doomam ne ko ku la gën kala yar moo la gën te yaa ma gën sama doom a ngi moo indi ko ci kër Alaaji Abdoulaye mais euh, Abdou Barhama maa ngi gën ci yàlla Cheikh Ibrahima naxut kenn. dafa am benn oustaz boo xam ne bàyyi ko yóbbu woon am su dégloo rajo yi dana dégg li may wax ba ko bàyyi yóbboo keer mu jàng ku mën a jàng la nag ku mën a jàng la di raw ñëpp fekk baay daf ne nañ ko indil ki raw ci école bi ñu ñëw ne bàyyi karaw ci école ba murid la bàyyi ne dama leen indi leen ma sama taalibe dama ne karaw ci école ba indi leen ko ma yóbbu ko ñu indi ko bàyyi ba muy bind lettre lam cay wax mooy maa ngi leen di yónnee sama ñetti doom wa ala rasihim diw diw moom a dem keer njàng mi di gën a neex mu dem ba mu yàgg mu foog ne bagage yi doy nañ mu naan man daan li ma gën a yéem bàyyi naan man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil xuldi bila buxtaani amul benn lay bu mu ci teg lu may naan is ën na nii xalifatu tijaani fu mu ko teg xanaa dafa mayoon ay mool yàlla bi muy tabax aljanna ba tax muy wax loolu sëñ Abdou xam nga nuñ koy ooye léegi diw nangam man yuhibbuni wa man yarani muqaddam la léegi moo jiite taalibe bàyyi ca région ba mu nekk ba bàyyi jaar ak moom fa mu war a jaar ak moom ba mu mosee man maa dem ndar def conférence mu pare ñu jox ko micro bi pour mu war a taaliq bàyyi jóob mii sama seede la dafa téye micro bi di jooy bañ nangu micro bi ci moom yaag moom a yem waxut ca géew ba waxoo ca géew ba foofa la toll léegi bi ma mosagut damaa ñëw toog di jàng allahu akbar yàlla moo gën a màgg sama yaay romb ma ne ma bàyyi ma ne ko ah, mu li ngay jàng baaxut ma daal di jël sama kaye ñëw nekko ko yaay kabiru mooy lu mag waaye soo ci defee alif bi ci commencement bi superlatif la ak bëru moo gën a màgg mu ne ma bàyyi alif baa kabiru gaag li ngay firi baaxut laa la wax lii fekkee ne kala koy jàngal moo la koy wax lam la jàngal baaxut ma ñëw naan ko hoo yow nag da ngaa jàngut ba pare mu ne ma yoon yonti yàlla Muhammad li ngay tuddee jàng jaaru ci te ñu xam yëpp moo leen di xabal ma dem Pampantès sax ki fi jógee léegi Cheikh Mouhamadul Amin sóob ma ma mos keroog ba ma ne fàtt ba ma jugaatee ba réglé keroog laa xam ne la sama yaay doon wax ne Allahu akbar firiwut yàlla gën a màgg wér na parce que ba mu sonnee daf la ma bàyyi lu fi yàlla di màgganteet te ba tey taxut ma xam wax ni mais loola loola sama yaay doon junj looloo tax nga topp Cheikh Ibrahim billahi bu doon téere yi li nga jëloon doy na. mais bari nga loo gàddu woon te déggoo ko maa ngi wat ci yàlla ba nga nekkee ndar di toog nit ñi wër la nga di leen jàngal foogoon nga ne li ngay jàngale yëpp dégg nga te bëri na ci loo xam ne bi baay pare ci yow nga ko dégg ba di ko déggale dama koy wax di man damay wax ne dangay gis léegi ku lay gàmmool àgg ci rañaan mi daal la yónnantu bi jiite yónnantu yëpp baytul muqaddis ñaari rakka ñu sëlmal nangam nangam waaw yonent bi dafay dund hayda la ilaha illallah daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay digil gëstaloodam sidi baram